war naa daal suñu xel bu baax ci li mu jëm xel bu baax ci li mu jëm ndax lépp sëñ bi nopp na ci fàggu loonu lépp lu si ne dafay fekk na nag la mu fàggu li mu fàggu ne il faut lu ci rek ni jëti cët waaye fàggu lu mat a fàggu kon loolu ci loolu nag am na yëqin ci tolluwaay bii ne noom ci yeesal suñu cant cant gu rëy si yeesal suñu jaayant di feddi suñu laxasaay waaw di di di di di sant di sant di di am mbégte mu am. ci tolluwaay bi. ndax xam naa ne nii nii nii rek lu ci ne. suñu tool noppi na ci waaye lu ci ne dañuy dox ba ak ci fii lu toll nag. Mm-hmm. alhamdulilah mën cee dolli ko yaakaar. mën na cee dolliku yaqin mën nañ cee dolliku lépp ah. nga xam ne sëñ fàggu ñu lépp ah. Ah. waaye tolluwaay bii hmm. leeral fekk feeñal lépp lépp moom doon lu ci dara lu ci ne wommat la boo xam ne dañuy lu ci ne lu war a romb dañ koy romb hmm. a àgg nu seet ndig ko ñu ko war a lépp moom waaw kon nag li ci li kanam lépp dañu hmm. gën a seddli suñu ndax gën koo jox suñu lépp gën koo nekkal ndax nekkal ko mooy nekkal yàlla xarfan bi xarfan mm-hmm. nekkal ko mu nekkal yàlla mm-hmm. sëñ bi nekkul woon ci dara lu borom ci borom rek la nekkoon mm-hmm. dégg yonent bi ci kon nan ko nekkal buñ ko nekkalee rek la ci lépp suñu yoon nekku ci peut-être fàggu fàggul nañu ko waaye dan dan dana tawfeex bi dolli ko ci noonu nag ak ndam yu ay ay ndam yu nuy yu nuy jëlee ci moom loolu rek moo ci moo moo moo ne ci kanam doy na sëkk war na Sëriñ Tuubaa du sa yaakaar mukk da mosoo si yaakaar Sëriñ Tuubaa du mos a nekk mosoo si yaakaar ko yàlla bu yàlla sa yaakaar ba yàlla nga àgg fa nga jëm rek. waaw ah, ah, loolu yëpp dama bëgg ngeen xam sama xol sedd na. waaw ci wàllu gën naa daal sama yaakaar gën naa dolli ko sama yàqin gën naa wér. alhamdulilah ci sëriñ bi. alhamdulilah loolu kanam rek la ñu. yàlla bu ñu wax ana ana ñu ànd yow rek. ñu ànd ko yow rek. waaw ah, ñu ànd ko yow rek. ñu ànd yow rek. sant nañu baax a baax yàlla na sant baax mu yàggal la fi lool rek barke si ñoom. wajalilaayi maskani tuuba baat misras mi abi jaayi xayri man